Mor TV ñoo ngi lay nuyu di nuyu population Mbàkke bi ñu dëkk di wax ni nawet bi moom ñaanu nangu sonal borom dafa barkeel ba ndox bi am na donte dañ ko doon ñaan waaye am na ay dégâts yu def ci yenn kër yi fu ci mel ni quartier bu mel ni Ndoyeen moo tax tey ñu xëyoon déployer quelques moyens ànd ak ñoom pour jàppale leen donte mënuñ kenn mën ndox coog yàlla asamaan si waaye wàññi ndox bi ndax it kër yi dañu xam nañ fàttali ko dafa am ay xale te yi lañ am pour fooy ci moo tax. ñu jël moto pompe yi ñëw pour jéem leen a dimbali ci liñ mën a am ah, jéem leen a wàññil ndox mi nga ngaccal leen ko au moins mu génn ci ëtt yi buy dem ci mbedd mi sax mu dem ci mbedd yi pour xale yi mun a foo ci surtout nag vacances lañ nekk. waaw am na yeneen quartier yu ñu dem fu ci mel ni Tablatia bi mais actuellement nii présentement ñoo ngi nii Ndoyeen ñëw nañ fii ci benn kër gis nañ gis ngeen ni ndox mi mel biñ fi ñëw presque ñun ñëpp ñoo ngi woon ci biir ndox bi waaye am nañ yaakaar ne fii ak une de temps ndox bi dana deñ ba xale yi retrouver waat seen mun mën cee fawaat ci lañ nekk nii ci liggéey bi di ci ndox bi ah moom bëgg nañ daal saay buñ sant gisee ni euh, besoin se présente askan wi soxla ñu ci lu mel ni moto pompe yi wala dara danañ ko génne ànd ceeg ñoom accompagner leen ñëw def ci luñ man donc te comme que nawet bi jeexagut te kenn xamul ndox mi fan lay yem duñu amut lu wutu luñ ko date limite actuellement ñoo ngi ak quatre moto pompe ñoo ngi wax nag autorité yi ci dëkk bi ñoom ñu gën cee jàpp dool ñu ay moto pompe wala déployer ay moyens accompagner ñu ndax askan wi xam nañ ni période campagne électorale lañ nekk waaye lii tamit dafa baax na as hygiène moom avant tout te yi mën na indi ay feebar mun na indi ay lépp donc buñ dimbalee nit ñi ba génn ndox mi def ko euh, mbedd mi na ci autorité administrative yi jàpp surtout autorité locale yi fexe ba gé wàññi ndox mi donte ndoxu taw kenn mënu ko fee jël waaye ñu wàññi ndox mi may nit ñi am fuñ jaar nit ñi mën a nekk daan de très bonnes conditions. yi mbedd yenn yi mun a song danañ ko jéem a song danañ jéem a wut ay camion manque vidange ñu song yenn quartier yi nga xamante ni xam nañ ni ndox bi bari na fa trop ba xam nañ ni bis bu tawaatee ndox bi ci mbedd mi ci kër yi la jëm yooyu danañ ko jéem a song def ci suñ kéemtalaay kattan